ameentoog chers téléspectateurs asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal bu baax a baax di leen naan dal leen ak jàmm ci seen émission yor-yor émission yor-yor nag di boo xam ne day daal di am altine jàpp ajjuma 11h bu jotee jàpp midi ñu ngi tuub bu baax a baax ci retard gi ñu daal di accusé waaye nag du suñu coobare lu ci mëntaam daal ñu ngi leen di ñaanal jàmm ci yéen en tout cas j'espère que wax dëgg fa yàlla week-end bi jàll na ñu koy daal di defee saa ki nga xamante ne mi ngi ngeen ko lool ci waxtu wile muy oustaz Ahmad Dame Niang salaamualeykum yaa oustaz. waaleykum salaam baada aouzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah salallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala kan ñu ngi lay nuyu mm-hmm. ñu ngi lay béggee tabaarakallahu ñu ngi lay ziyaar ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm ñaan yàlla nag weekend bu ñu génn tabaarakallahu comme ni koy gars yi di waxee yàlla def ko xéwal mm-hmm. bi jaahi Seydina Muhammad te gars yi nag bàyyi bu weekend ñëwee rek ñu jàpp ne weekend moom mooy yàlla ba weekend bi jeex <laughs> yàlla nañ ci yàlla musal amiin nuyu nag tabaarakallaahu xale seen yi ci réew mi yëpp mm-hmm. bëgg leen mm-hmm. ñaan yàlla yàlla may leen gudd fan ak wér ñu mottali seen liggéeyu maam tabaarakallaahu Mm-hmm. nuyu nag képp koo xam ne day wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mm-hmm. nuyu nag tabaarakallaahu ñëpp bégg ñëpp mm-hmm. ziyaar ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ñaan yàlla yàlla defal ñëpp jàmm bi jaay gi siir na Mouhamed Thierno ma jox lu yóbbante ku ñu naan Mouhamed Diallo Mouhamed Diallo bokk ci tabaarakallaahu ahlu sunna wal jamaa mhm. nekk fële ca tabaarakallaahu ci euh, yëmbal mhm. mu ngi lay bégge bu wér tabaarakallaahu ne ma dama boo demee béggel ma Thierno moom sunu waay la tabaarakallaahu mu moom it mu ngi lay bégge bu baax a tabaarakallaahu macha allah jërëjëf jërëjëf euh, bismillah alors maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye oustaz mhm. tey jii dafa nekk euh, début semaine comme nuñ koy daal di defee Euh, les lundis les euh, mercredis et les vendredis maag oustaz ñoo koy janoo léegi moom dañuy faral di am ay invités yu gën a bari ndax da ciy baax. Mhm. Euh, dañoo ne émission bu ne day daal di am taxawaay ci askan wi te yaakaar naa ni émission bu ne bii lee muy émission yor-yor bàyyiwul dara ca loola moo tax saa su ne day faral di am ay invités yoo xamante ne macha allah léegi chaque àjjuma bëgg naa oustaz. Mhm. nga xoolam ab invité boo xamante dafi daal di ñëw. incha allah ñuy waxtaanee li nga xamante ne moom mooy diine gi lee. incha allah oustaz balaa bi loolu dañ koy daal di indiwaat ndax dafa am yeneen yoo xamante ne dañ ko cee bëgg a bisaat et je pense que aussi yéen téléspectateurs yi mën ngeen ñëwoo ci 88 628 02 02 et pour rappel on est en direct sur Facebook et sur YouTube Facebook nag Leral TV la juste da ngay tapé Leral TV di nga gis directement euh, le direct bu fekkee am ngay question yoo xamante ne da nga koy daal di posé Adja Studio la ko daal di récupérer directement mu daal di ko indi fii maa ngi koy nuyu de ma ñëw ci thème bi dafa am benn actualité bu fi daal di xew dafa am benn euh, borom ñaari tour ñu mhm. daal di lakk ca Kaolack. Mhm. ci ay rumeur wala bokk moom laam du moom. Mhm. ala kulli xaal jiñ nañ ko boroom ñaari tour ñu bëggoon ko indi ci euh, ba euh, ci ci armeer ya. armeer Kaolack ya. pour ñu ñu ñu ñu daal di ko fa suul. population bi yëngu nee ñoom duñ ko fa suul. li ñuy daal di def mooy dañ koy daal di lakk ñu lakk ko ci diggu penc bi oustaz ndax loolooy àttee góor jigéen waaw àttee góor jigéen moom tabaarakallaahu li doon farata ji moom mooy rey waxuma la laata muy dee ñuy kii de li doon farata ji moom xat àtte bi mooy ñu rey ko li mu li ñu ko wax li li charia wax mooy dañ daan ko dellul génnal ci li nga nekk insiste ci insiste ci ba ci trois ba trois fois ne ko génnal ci li ngay nekk mhm. bu bañee nag moom daan da koy teg da koy teg ci charia daan bi nag mooy rey ko ci jamonoy àtte charia rek xam naa àtte boobu moom amu fi fi ne nii mhm. ku fi tabaarakallaahu na ma rey nit dootoo ko defati mhm. loolu moom tabaarakallaahu li charia wax ku njaala am jabar ñu yooyu yëpp bi ay waay imaam naan da koy def rëbës nga jëm wala si bi xutaan lu a bàyyi xel la léegi na ala kulli mhm. euh, loolu mooy àtteem ci charia léegi nag bu ñu koy suul charia dafa wax ne kooku bu doon wax ne gëm na yàlla gëm yonent bi imaam du ko jullee dañu xool naafiq bu bon koo xam ne màndikat la walla koo xam ne góor jigéen la ni moom te wax ne gëm na yàlla ñu ne ko kaay taxaw jiite ko mais imaam moom du ko jiite déedéet ku baax moom du ko ku tu ci moom baax rek du ko jiite rawatina nag imaam mhm. léegi nag suur ci arméeru jullit yi ci boppam moo am ixtilaafa Mm-hmm. dafa am ñu ne dañu koy suur ci armée lu jullit yi am ñu ne duñu ko suur ci armée lu jullit yi mais waxuñu taal ba léegi mm-hmm. waxuñu it bañ a suur mm-hmm. li ñu wax daal mooy nañu ko rey comme def ci dugg ñu wax nangam ak nangam te nag comme li nga wax gars yi dañoo jàpp ne riimar la moom ak du moom waaye mbooloo ku ñu xool ne yawa yawa mm. dëkk ci koñ bi wane ko gars yi xam ne yawa wane ci solide ñu xama yawa wane ci waxin ñu xam na yow wane ci wéet nag ñoo xam na yow waaye nag nag jar na def attention balaa ngay tuumaal kenn lu rëy. mu leer nga mu leer ci yow. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Euh, directement Régis si euh, on peut avoir les les images s'il vous plaît vite fait rek pour que. balaa ngay tuumaal nit lenn. mu leer ci yow. parce que charia moo garaaw. dafa am jukko yoo xam ne bis boo ko tuumaalee nit rek tuumaal gi nga ko tuumal tuumaal googu noonu loolu jukko la jukko jooju nag moom lañuy ñuy moo tax yonantu ne balaa tuumaal nit lenn am ci lu la wóor bul ne foog naa bul ne yaakaar naa rawatina nag yu mel ni yii yu mel ni njaalo kenn du ko tuumaal nit gis nga sani alum ci wax seede yoo xam ne dañoo fekk tombéeg buy dugg di génn waaye tamit góor jigéen bi mhm. mu wóor leen la góor jigéen nga mhm. fekk nga ko muy jaxasoo góor mhm. yaa ngi dégg fekk nga ko muy jaxasoo góor mooy lu leer yow ngeen ñëw gis ko taxaw ne góor jigéen la loolu lu jar a bàyyi xel la xalaa kulli xaal nag moom it am na ay am na ay alaama yoo xam ne di nga la alaama yi xam mandarga yi ne moom mooma yu mel ni yenn solin yi mhm. yu mel ni yenn doxin yi mhm. yu mel ni yenn waxin yi mhm. waaye li gën a wóor nag mooy nga teg sa bët mu góor waaye nag ñoom dañoo bari fi mu ne nii ba gaa yi mën nañoo bañ a teg bët waaye ñoom dañuy wër di doxaan góor ñi ah. doxaan gi ñuy doxaan góor ñi nag mën na tax góor xam leen ci loolu tabarakallah mooy di am waaye attey góor jigéen nag moom ci boppam charia def ne moom bu ñu xamee ne moom la ñu ne ko dellul mu bañ dañu ko war a rey waaw loolay jërëjëf jërëjëf Oustaz alors thème baa ngi noonu euh, la fornication mooy njaaloo ci olof waaye ñuy xam ne lu ci ëpp nag ay question yoo xamante ni dañuy daal di ñëwaat Oustaz je pense que les internautes chaque fois dañuy laajtaat thème bi ndaxte lu am solo la te mhm. actualité la mhm. le problème a est ñu gën a bari bëgg nañ ko bàyyi nag Oustaz mhm. waaye nag virus la du gaa di wax ñu bari bëgg nañ voler waaye waaye suus ga la ñuy daal di bañ ci loola Oustaz bismillah ci ci ci thème bi directement alors. waa thème bi tabaarakallaahu lu am am solo la muy ab dina. tabaarakallaahu nga xam ne ñu koy defe naa kii mooy mooy moom moom lañ taal nii. waaw moom la. est-ce que Kaolack nii ñëpp ñëpp génn kay. après le lendemain gars yi bi ñu ñëwaatee mooy ci gis mooy ci cendrier yi bu fi fi ñu nekk dafa xooñ ba kenn xamatul la. fi mu. maanaam fi ñu ko lakk nii. waaw dafa daal di xooñ xooñ ba kenn xamul. moom jëmm ji. waaw jëmm ji. loolu nag tabaarakallah war na mën a tax gaa yeneen yi ci nekkoon yëpp ñu effacé wu ci bu baax a baax loo xam ne waxuma la dara sax waaye charia daf lay tere société boo nekk lim bëggul nga bakko société boo nekk. Mhm. waa société ba luñ bëggul nga bakko waxuma la nag li la ci charia teg mhm. mais nan nga fiy rombee góor jigéen naan da ngay dem ci góor kan. ak góor ni mu mel. kan nan la yàlla dafay góor ba pare nga ne léegi da ngay jigéen jigéen lu kan. ak góor nu mu mel oustaz. mais kan imagine loolu nan la yàlla dafay góor ba pare kan ngay jigéen jigéen lu. doy na baax doy na loolu nag tabaarakallaahu beneen affaire la yal nañ ci yàlla musal góor daal na góore rek jigéen jigéen ni jeex waaw góor nag moom lañuy sant ci moom. góor mooy tabaarakallaahu jigéen ñi waaw mu bëggante nag te takk soxla waaye dund ba tabaarakallaahu koñ bi yëpp xam ne góor jigéen nga na ci yàlla nañ ci yàlla musal mm-hmm. góor jigéen kooku moom tabaarakallaahu mais nag naturellement am ñoo xam ne du ay góor jigéen de mm-hmm. ay jigéen ñoo leen yar waaw seeni kàddu lañ yor mm-hmm. seeni doxalin lañu yor seeni manière lañ yor ah, boobu de baaxul moom manière ba de moom maa gis naa ci koo xam ne wallahi man xam ah ci li ma xam uh-huh. du góor jigéen Mm-hmm. mais yarin gi maanaam ñoom seen kër ñëpp ay jigéen lañ. Mm-hmm. te Oussa bu la ceebale. Mm-hmm. <laughs> kooku bu la ceebale Oussa bu la rëgalalee. Uh-huh. wallaay da nga yaakaar ni jigéen na ko topp. est que. mais nag wax dëgg fa yàlla moom manière yi dong nga ko yàq waaye moom ah. man ci li ma xam na ba manière de. non parce que na ko roy ci góor gi nag Oussa yarin gi nag ci ci ci la de. yarin gi ci la waaye sawaay la. sawaay waaw nee ko mu dindi manière ki bu la ne oustaz yow nee ko mu dindi manière gi du ci yam <laughs> mu dindi it waxin bi d'accord mais jigéen mën na la yar mais du da ngay dëkk jigéen dëgg la mais ak société bi ni mu toll oustaz mais xale noo ko yaree rek noonu la mais xanaa jàngiwul day jàngi mais dama ne na seen kër ay jigéen dong nga fa ne mais seen kër lu fa jigéen jigéen jigéen jigéen nekk du génn ci mbedd bi. Oustaz li may wax nii téléspectateurs yi xam nañ ko dafa am ay victimes yoo xam ne. waaw ay victimes mu éducation lañ mooy. ci maanaam ci seen. yarin kon jigéen ñi daal kon ñu góor. ci seen i yarin la. kon léegi ñu ñu ñi nga xam ne. Oustaz tey par exemple. awma dara contrôler bongo man wala et cetera autre. mais tey seen jëfini du jëfinu góor. mooy mais non du jëfinu góor kat. loolu moom ku ne xam na ko. wax dëgg fa yàlla. néew léegi nag la tëggaa nekk. man ah, yow tëggkat bu yaa bu góor yi. ah yaa gis man bu góor yi bongo man boo xam ne dafa góor yi gis nga ko bis ba mën a woy sama woy kooku jigéen na la ci saasi moom moom du góor moom. sax noo sama kële ñëw taxaw na ah, ah, Mor Thiam géwël man nga idole man nga référence. ah Mor Thiam Géwël. <laughs> oustaz Mor ba kan mooy kan kan kan kan moo a référence rek ci Mor Thiam Géwël. oustaz nag réew mi toll foofu. moom nag xaritu jéegi la moom kan kan mooy idole la kan moo war a idole rek ci Mor Thiam Géwël. xaritu jéegi la la taxaw naan man la ñuy wax. <laughs> man la ñuy wax. mais imagine toi yooyu. oustaz Mor da lay tëggal yaa ngi dugg si boppam. ah Mor de ku baax la nag. ku baax la wax dëgg jël jël teraangam nag moom di ko jox waa kër yonent bi nag waaye nag moor mhm. kooku nag moom du du du wax dëgg fa yàlla du du du yëfu góor manière manière googu mm, du yëfu góor Babacar it moom ci lim nekk du góor Babacar bongo mhm. góorewul da ngay gis ko ci xeesal ba mu baax roccu tuñ bi mhm. ñëw yor bongo gars yi naan kënc kañ nga ñëw taxaw nga ñëw taxaw di biiñ ak lu ne nga dugg ci Oustaz kii de la ñuy wax. ah Mor Thiam mii <laughs> imagine toi nag Mor biñ yeeg manière yeeg yooyu tamit nag wax dëgg fa mais jéeg yee ko tàmmul. waaw loolu loolu liggéeyam sax. mais non non non day taxaw sax fi mu ne nii thème day taxaw man dama ko gis mu taxaw ci plateau nii rek ma xool ko ree ndax jom mi waaru. nan la góor quoi mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën yenn yi. Ah. moom nag ku baax la. ndax day jël alalam di ko jox ñuy tagg Sayyidina Muhammad waaw mais nag Oustaz di leen ci teral ci alal googa gis naa ci koo xam ne Oustaz dafa pare woon sax ne da ko yóbbu Màkka Oustaz ci alal googa loolu tabarakallah ci woon la waaye lépp nag alal alal nga yëpp nag mu déedéet xaara xaara man nga idol man nga di tëgg bongo rek ci alal Oustaz ci alal comme ñii rocc tuñ yor si subhanallah ki ngay waxal Babacar Babacar moom ngay waxal nga mhm. ah, baax na dama ne ci alal googa ni mu amee alal gi ak fi mu koy jëmee mbaa dina ko njëriñ. waaw amul amul alal gi nag moom dafa dafa xaraam moom. ni muy amee alal. Mm-hmm. ah waaw tëgg gi tëgg da foofu tëgg tëgg gi bongo gi. dafa nga tëgg nit xolam neex génne xaalis. mais bongo d' accord mën nga ñëw teg tëgg ba tëgg ba ci laa àndul mais ah, kan mën nga ñëw fekk fekk la nga taxaw nii mu bàkk la bàkk say maam loo ko jox doyul. loo ko jox doyul géwël bi lay tagg da war a jàpp ne tagg bi muy lay tagg moo a gën ci taxawaay bi ko bàyyi maamam bàyyi maamam ñëpp ñëw di tagg sa maam bàyyi boppan di la tagg bër bu mu lay tagg noonu da jàpp ne moo a gën parce que wàcce na boppam bàyyi ay maamam ñëw di la tagg di tagg ay maamam kooku loo am war ko ko jox da ko war a xeet waaye waaye nag bëngoo gi moom ratambalax ratambalax gi taas gin gi kooku nag moom daf xaraam Mm-hmm. loolu mooy taxawaay bi. Mm-hmm. mais nag muy ñëw di tagg sa maam di tagg sa kii kooku moom wax dëgg fa yàlla. loo mën a am jox ko ko. moo tax ma gis benn waay euh, dañ ko dañ ko euh, benn oustaz sax dafa am ngente euh, ngénte gi nag gaa yi wër ko di ñëw di kii mu ne leen arrêté am ku ne leen arrêté leen bongo yi parce que ngénte oustaz la. Mm-hmm. ñu arrêté bongo yi ñëw di ko wëy di ko wëy mun ne non du ci joxe sama xaalis parce que nga ma ne ko déet waay ñii kay ñëw neen di la tagg kay ba seen maam. di la tagg yow sa maam di tagg sa baay ba seen baay di la tagg yow ba seen bopp yëkkati li nga am jox ko ko. loo am rek loo leen yéene. loo am lu leen yéene yëkkati ko jox jox leen ko loolu ngënil la. Mhm. moo tax Cheikh Alhaji Malick daan na wax ne nag man nag moom. Mhm. géwél bi ñëw di ma tagg lu ma am ma yëkkati jox la ko. te muy dëkk. ndax mu ne koo xam ne bàyyi na maamam bàyyi lépp ñëw di ma tagg. Mhm. lan laa ko jiiñ. Mm. donte dërëm ba la fay séentu mën naa ko jox. Mm-hmm. loolu la rek. Mm-hmm. kon tabaarakallaahu loolay taxawaay bi Mor Thiam gërëm na ñu ñaanal ko. Mm-hmm. ñu ñaanal ko ñaanal leen ñoon ñëpp nag tabaarakallaahu waxuñu ko nag ngir leen waaye dafa nekk loo xam ne dafay def ba tabaarakallaahu dafay mujjee dugg ci société bi nag. ñu jàpp ne nag tabaarakallaahu góor. mën na mën na yor melokaanu jigéen. te góor warul yor melokaanu jigéen. góor warul dox doxu jigéen. góor warul wax waxu jigéen. góor warul meññeer du mel ni jigéen. te bis bu bungu yi jógee ci ginnaaw rek yaa ngay meññeeru di waxee waxu jigéen. waaw di bii ñàkk a bañ. waaw di bii ñàkk ak bañ ak ak leemartiku yëpp tabaarakallaahu du yëfu góor. Oustaz dafa am lu ñu woowee hormone. Hmm? hormone dafa am lu ñu woowee or hormone. hormone. hormone hormone. hormone dafa am hormone góor ak hormone jigéen. waaw. am na mooy jigéen moom mooy tax mu am kanam am ginnaaw am forme jigéen. hormone góor mooy tax mu am ay pomme d'Adam am ay lii nii am jàpp affaire yooyu si sidit yu génn ak ak mm-hmm. ni mm-hmm. mais am na ñoo xam ne naturellement ñoom seen i hormone masculine masculin moo ëpp seen hormone féminine. Euh, donc boo ko dugalee ci cadre nag ay masculin ak hormone. Oustaz ci jàngum anglais bu métti nga ne. waaye dinañ ci ñëwaat incha allah. ok let's go alors directement alors ci thème bi je pense qu'on a un peu du temps. waaw tabaarakallah bu bi nag moom. Mm-hmm. comme fi ñu ko teewoon nag muy abdina muy njaalo njaalo nag moom tabaarakallaahu waxoon naa ne bàkkaar yi gën a màgg njaalo ca la bokk maanaam bàkkaar yi gën a rëy azamu min kabairi njaalo ca la bokk abdina tabaarakallaahu moom la alquran waxoon ca aaya ba na rey nit ak njaalo képp ku ci doxul sa palaas aljana la ku dox ci ñaar yi nag benn benn rek ku ci dox muy njaalo wala rey nit yëgal ne sa safara la subhaanallah te nag du ci yam dugal la safara dama lay dugal safara ba pare binal la safara saxal la safara léegi ak Qur'an waxoon kon lu jar a bàyyi xel la ñaan yàlla yàlla yàlla musal ci njaalo njaalo doxul kan doxul de yàlla nañ ci yàlla musal beneen bi tamit ma waxoon ne imaamul ahmad dafa waxoon ne li gën a màgg gannaaw rey nit njaalo la nee na bàkkaar yi ci gën a màgg gannaaw rey nit njaalo la daf ne gisuma imaamul ahmad daf ne laa yaarifu baada qatlil nafsi aadamu sayan min dina wala zayan aadamu min dina daf ne xamuma lu gën a màgg gannaaw njaa gannaaw rey nit njaalo xam nga rey nit lu bon la ak am ne ku rey nit ñu rey ko ku dagg nopp ñu dagg nopp waaye ku rey nit géem yitteel ku rey nit ñu rey ko alquran lii la wax alquran wax ne ku rey nit sa place tay ko sa place mooy safara borom téere bi ne nag gannaaw rey nit ta tay ko li ko gën a màgg ci bàkkaar mooy njaalo waxuñu beese peesekaay balaasu bàkkaar nag waaye li gën a màgg dafa ne wala yaarifu baada qatl nafsi aadamu min adina xaw ma lan gën a màgg gannaaw rey nit te tey ko gisuma lu gën a màgg njaalo ci bàkkaar xanaa kon mbokk yi njaalo baaxul njaalo lu yiis la yontu Muhammad daf ne laa yazni azzaani hiina yazni wa huwa al-mu'minu yonuntu nee ne bi du nekk jullit jamono bi muy njaalo yéefiir jamono bi jullit bi di sëgg ci ndaw si wala ndaw si di sëgg ci waa ji ñuy njaano di sëy jamono jooju ay yéefir leen duñu jullit bu ñu deewee safara safara lañu jëm bu ñu deewee ci yéefir la dee deewuñu ci jullit laa yes ne yéen a laa yes ni azzaani hiina yes ne wa huwal mu'minu ci lay waxee it na tamit nag du du du ak ki nga xam ne euh, ci lay waxee tamit nag ki nga xam ne dafa màndi jamono bu muy màndi mënul di màndi nekk jullit dégg nga li mu wax. def ne ki nga ki nga xam ne day màndi jamono bi muy màndi mënul nekk jullit ca màndi ya muy màndi. kon nag tabaarakallaahu kan njaaloo ngi noonu njaaloo tabaarakallaahu lu rëy rëy la. li ci nekk daal tabaarakallaahu lu jar a bàyyi xel la. ay ay ay danger yu rëy rëy yoo xam ne mën na dugal nit safara lakk ko ba mu jeex tak tak tak defaraat di lakkaat. kon ñu lakkee góor jigéen. waaw comme comme comme ni ñu ko defee nii rek xam nga duy sax moom yomb na. parce que nag safara si ngay gis mooy saxaaru safara si jëm bii dañ ko lakk mu jeex jeex na ëllëg beneen lakk ngi ñëw nag ci ku sax ci góor jigéen bi dégg naa waaw ci ay taarix ñu ne bi aadama soxlaa soxlaa lii ni xal mm-hmm. bi ko yàlla di jox xal wi jaarale ko ci jibril mm-hmm. dafa jël xa maanaam dafa jël daf ko fay fayaat ko yóbbu ko ci juróom-ñaari géej yi tàbbal ko fa ñu mu soog ñu ko jox sinon duñu ko attan. ah déedéet sinon duñu ko attan déggoo déggoo li ma wax dafa ne safara si. Mm-hmm. mooy saxaaru safara sa mooy saxaar si. allahu akbar kon nga yëg ne nag te nag ni nga koy yëgee fii noonu nga koy yëgee fële. li la mën a lakk léegi ba nga ñor ba jeex tàkk te ëllëg muy saxaaru fële xanaa kon li nga war a daje garaw na. te nag li ci gën a garaaw mooy safara yi dañoo am étape par étape bii da gën a tàng bi bii gën a tàng bi bii gën a metti bi bii gën a métti bi mais ñu yëg ne daal lu am daal mooy safara daal safara la te lu gën a yéeme mooy fee amul dee sa ah déedéet mu ko lakk ne la dee nga nii déedéet loolu loolu loolu loolu loolu amu ci allahu akbar loolu moom tabaarakallahu yàlla nañ ci yàlla Oustaz Oustaz yàlla nañu yàlla yërëm yàlla non nañu yàlla dimbali yërëm ñu yàlla ñu yàlla yërëm lu jar a bàyyi xel la léegi nag yàlla nag moom lu ñuy def ba ñu mën a yërëm mooy ñu dox ci ay bëgg-bëggam rek góor góor lu ci rek moo ne ku def lii ku def li ma préparé la lii ku def lii gis nga yàlla li mu wax ku maytu rey nit maytu njaalo ëllëg sa place maa la ko assurel aljana la waaye nag ku fexee ba rey nit tey ko safara nga jëm ci nga yem nag mu ne it ku njaalo njaalo njaalo safara nga jëm. te tuuboo. te tuuboo illaa man taaba nag fa la jeexalee aaya bi. Mhm. xanaa nga tuub. kon nga yëg ne kan njaalo bi li muy bari bari yàlla nee na bis boo tuubee ma jéggal la. Mhm. mais nag boo tuubul moom dama la baal. Mhm. yàlla ak lépp loo mën a séq ak moom moom nee naa ba tey amul problème mu baal. yàlla moo bind nit ñi nit ñi di juum. yàlla ne mu ne maa bind ngeen di juum. ma jaarlaw leen nii ngeen xëy jaar nii dama leen comprendre xam ne ni ma leen bindee la waaye bu ngeen ñëwee tuub ma baal leen waaw yàlla bañul ku tilim de mhm. ku sangu la bañ ku ku bañ a sangu la bañ ku dul sangu ku dul sangu moo tax yàlla ne jéggal naa ñi nga xam ne ñëpp dañuy dañuy njël toog di wax di wax euh, istixfaar wala wal min istixfaaru min al ashar ñi nga xam ne dañuy jéggalu yàlla yëpp ci njël jéggal naa leen ki nga xam ne day julli ba pare toog di ma jéggalu jéggal naa ko ku julli ba pare toog di ma ñaan ma jéggal ku jéggal naa ko ki nga xam ne dafa jàpp ba pare rek toog di ñaan naan ko yàlla yàlla nga ma jéggal ci làng boo ko defee ma jéggal la parce que yàlla dégg na langue yëpp amul problème bi gën nag mooy ci langue arab ci boo ko mënee muy astaghfirullah tabaarakallaahu moom la tudd ci alquran mhm. loolu nag tabaarakallaahu mu ngi noonu ñu bàyyi xel baax a baax daal mu ngi daa daa daan yi mu am rëy na lool daan yi mu am rëy na. léegi nag alaakulli xaal nga dafa am ñoo ma laajoon. ne ma dañoo bëgg nga ñëw ci mbugal yi ci ne. mbugal yi ci ne ak tabaarakallaahu yàlla tege yem ci teg. te ma waxoon ci li nga xam ne yontu yàlla Muhammad wax na ko. yontu yàlla Muhammad dafa waxoon ne njaalo. yuurisul faqri. dafa waral ngay dund waaye dangay ñàkk. ñàkk gu gaaw ñàkk gu dul dagg njaalo daf koy waral. maanaam doo am doo doo am sobe loo laal mu dëgër sobe loolu lamb mu dëgër nga lu ne nga dugg ci fu ne nga dem ci nangam ak mu fekk njaalo gi la rek boo bàyyee njaalo rek génn ci sobe yi mu jeex tàkk waaye njaalo kan dafay tëj nit yuruntu ko wax yuruntu nee nag day njaalo dafay waral nga ñàkk doo yor dara loolu lamb mu dëgër loo yaakaar mu tes loo yuntu doo ko jot naan dañ maa liggéey ak nàggam fekk da ngay njaalo njaalo la njaalo ko teg waaye léegi ñuy jaay seen bopp yu dusul faq léegi ñuy jaay seen bopp ñoo ñoo gën a yées di am alal gu teg ñoo ñoo gën a yées njaalookat yu mag yi ñoo yor xaalis oustaz nag ko dëgg fa yàlla mais kan waxoon naa la ko ne la kam kaafirin dañoo yor mais waxoon naa la ne la kam kaafirin am wàlluhu jumbatan tasdaadu ad'afa alal kufri wa muminin laysa lahu dirham yasdaadu imaa alal fuqri yàlla nee na boo demee ba denc man nga dem ba dëj nga ci man dëj nga ci man définitivement lii nga bëgg o obse ko yàlla nee na nag loolu nag moom toujours dama la ciy dolli nga di ko gën a am muy gën a dox ci yow rek ma di la ko jayee nga yaakaar ne ma di la ko jayee kooku nga yaakaar ne lu sax la fekk ne ne yàlla man la déggu li muy wax ci alquran mhm. ba muy wax ak banu israël nan leen fàttaliku leen ba ma defee seen maam yi ñu gën ca jamono jooju mhm. doonte gëmuñu ma mhm. ani faddaltukum ala alamin man maa leen defoon ñu gën ci mbindee fa jamono jooju waskuru ni'mata lati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alamin fàttaliku leen seen maam yi nga xam ne maa leen xéwaloon ñu gën ci seen mbindee fa jamono lépp ñu ko luñ bëgg am ko gën a kawe yàlla nee na kooku mën a waaye taxul nag ñu gën gaay ci jaamu yàlla ñu ci bëri sax gëmuñu ma waaye li man maa ko coobare xam ne loolay seen bëgg-bëgg ma jox leen ko li yontu yàlla Muhammad wax na xadis bi daa doon inna bi binaire wa innamaa li kulli imrin est-ce que xam nga oustaz ci benn mais xam nga sobe njaalo nag ci benn anam waaw ci benn anam tey comme par exemple ñu ne kii du jullit mhm. li muy def yàlla mu ngi ko ciy fulal mhm. mu ngi ci fulal mhm. mais da gis chaque fois day génne di joxe dimbali ñu ñu néew doole di génne di dimbali borom jàkk yi di génne te moom li mu nekk baaxul oustaz am na ñoo xam ne li ñuy jox seeni waajur seeni waajur xamuñu fu ñu jóge mhm. muy ay xale muy ay mag muy góor muy jigéen mhm. ñaar yëpp mhm. am na ñoo xam ne genre dañuy génn <clears throat> seen waajur xamuñu ci lan ne dañuy jékki-jékki rek ñëw <coughs> pap <coughs> papa am euh, am cinq cent mille a ngi trois cent mille jàppal ci lii xam naa ne lii méttiwul te il se pose même pas la question mën na jóge fu bon comme mën na jóge fu fu fu fu lew Moussa ndax kooku nga xamante ne mu ngi def yooya te di def ay jëfin yu baax kooku ndax dina am payooru Allah subhanahu dañ ko ci duma nag waa ji moo waxoon ne bépp alal ju bon jooy am alal ju bon nga am nga delloo ko ci lu baax ñu duma la ca dañ la dañ la ciy duma xam alal ja nag noo ko bon moom moom bàyyil xel ne alal ju bon am nga ne jàpp ne nag ne maa ngi koy def ci lu baax ay duma dong nga ci amee nga ci yàlla ay déedéet foo ko ci jëlee fi ko jëlee la xam nga yàlla waxul ne am ko nii rek du ma lijjanti foo koy def waaye yàlla daf ne la damay lijjanti foo ko jëlee benn falaay njëkkee bu normalul sama yoon newul ci nag foo koy def bu ma lijjantee nag foo koy jëlee ba pare bu normalé ma ne kañ dem ci foo koy dugal parce que boo amee alal am alal am euh, euh, amin gu lew liggéey weer dee ñu fay la nga dugal ko ci lu bon lu bon dañ koy dañ koy rek dañ dañ koy régler de. même bu fekkee yaa ko liggéey. waaw wow ci lu bon ni nga koy def yàlla daf koy rek ak yow. kon nag nga déggee ci ne maanaam bari na koo xam ne mu ngi jël alalam nan daf koy def ca jaamu yàlla te alal ja ci lu bon lu ko amee juralu ko len am lu mu ko juural xanaa mu am ci tabaarakallaahu kontaanu nit ñi rek. nit ñi kontaan ci. mais ay way waajuram mën nañ kontaan ci moom Moussa. ay way waajuram mën nañ kontaan ci moom beneen bi tamit ma profité wax la ne alal nit bu ñëwee lijjanti alalam alal ja nag kenn xamu fu ko jëlee ñëw jox la ko xamoo yow fu ko jëlee muy waajuram ak yooyu nga lekk wala nga laaj ko sax mu tuur la lëndëm ne la fii la jugee moom mu jàpp ne foofu lay jugee rek te jugewul foofu jur bu dañ ko toppee ci leen ci loolu. non dama ne maanaam xolu waajur gi mën naa sedd ba ñaanal. xale bi waaw xolu waajur bi mën na too sedd ba ñaanal ko ñaan ka nag dal ko loolu kenn du ko werante loolu kenn du ko werante ala kulli xaal waaye nag mais nag man man la may wax nag mooy mooy fayoor ba yàlla di fay ci alal xam nga kat yéeguloo ne boo liggéeyi sa alal salaire bi dee weer bi dee nga dem yóbbu ko kër gi waa kër gi di ci lekk di kontaan kontaan googu noonu ñuy kontaan yàlla dala ciy bindal tiyaaba waaye liggéey bi ñu ko liggéey indi ko ci kër gi yàlla bindal la tiyaaba fay la ko. muy ñaari yoon muy ñaari yoon ku ci lekk yàlla fay la ko ku ci lekk yàlla dalay fay moo tax gars bu ñuy xeeb liggéey bul jàpp ne liggéey yow la lekk dong sama war a dund déedéet yàlla la ciy fay de filik yaa yàlla dalay fay filik yaa ngi liggéey di dundal sa njaboot yonent yàlla Muhammad nee na yàlla dalay fay ci dundal gi ngay dundal sa njaboot. bokkut ak moom nag muy kontaan naan lekk gi nangam tey ganaar la ñuy lekk nangam du ci ko moom moom mën na cee kontaan big waaye nag période bi ci gën a rëy nag mooy période yi la ci yàlla dencal yëgal na yàlla dina la ca fay fay bu bokk nag loolu léegi nag kooku mën nga ko jox loolu sa sa sa sa wayjur la mhm. mu ñaanal la kontaan big ci li nga ko jox mhm. kontaan ci big ci ñaanal la ci mhm. waaye bokkut ak nag moom bu baaxoon lu la ci yàllay fay ak bu bonee lu la ci yàllay fay muy muy muy muy la ngay joxe ci boppam. loolu mooy taxawaay parce que li ngay joxe moom daan nga ci boppam day am daanu fa nga koy jëlee boo ko dugalee ci leneen it daan tabaarakallaahu ca la ca ca ca ca ca ca li nga ko dugal. bu baaxee fa nga koy jëlee ñu xool daanu fa nga koy dugal ñaar yëpp nag bu baaxee yàlla boole la fay la ci tabaarakallaahu yu yu bokk. yiwu liggéey bi yiwu fa nga koy dugal yiwu nag tabaarakallaahu ña ngi koy jox seen xol di sedd loolu tabaarakallaahu yàlla moo koy joxe yàlla na ci yàlla dimbali mm-hmm. ma wax daal njaalo daal lu bon lu yiis la mm-hmm. ma profité ci rek balaa ajaas du ñëw njaalo yuntu yàlla Muhammad nee na njaalo mm-hmm. kan dafay waral ñàkk dafay waral ndóon dafay waral dukkari njaalo baaxul njaalo dafay waral lépp loo dugg du sotti dafay waral ngay yaakaar muy tas ngay dugg ci muy dëgër fu ne nga dugg fa dañ ma liggéey dañ maa nangam fekk njaalo bi nga nekkee la boo ko bàyyee rek mu jeex yurusul faqri yuruntu nee na njaalo day waral ñàkk yuruntu nee na njaalo day waral gaaw a dee gaaw a dee gaaw a faatu deewit bu ñaaw dee gu ñu fogeewul njaalo da koy waral gaaw a dee gu bari deewee na ndaw daa deewane ndaw fu ñu jëm fekk njaalo dong mooy li ko waral nañ bàyyi njaa njaalo baax lu yées la da koy waral ñu bàyyi ko xel baax a baax waral deewoon bi ñaaw waral tamit deew deewin bu ñu fogul bu ñu fageewul njaalo moo koy waral njaalo day waral mbugalu bàmmeel mbugal gu metti sax njaalo koy waral njaalo dina waral ba borom téere ba lu mu waxoon ne maanaam diggante yi nga xam ne dafa nekk ci rambaaj ba yàlla ne kuy rambaaj du dugg aljana moom boo ko jëlee juróomam mooy benn njaalo biñ la war a fay xanaa kon yow biir biir biir biir safara safara nga jëm alxuraan ne kii njaalo dama koy fule ni di ko lakk di gën a métti lakk gi di gën a métti lakk gi di gën a métti lakk gi toujours dama koy saxal safara yàlla nee na nit mën na dugg safara génnal waaye njaalokat moom bu xasee dugg safara du génnaat dama ko fii biral wa yaxludu fi naar dama koy biral ci safara xanaa kon njaalo yiis na subhanallah njaalo baaxul yàlla na ci yàlla musal yonentu nag ne jamono bi ngay njaalo yéeféer nga nekkoo jullit boo deewee safara nga jëm allah yàlla ñu yàlla dimbali kon nañ bàyyi njaaloo di non njaaloo baaxul te njaaloo daa siw mooy bëgg njaaloo fi mu ne nii tem bàyyi leen njaaloo jigéen ñi tamit jigéen ñi tamit bëgg njaalo kon Oustaz da nga gis góor ñoo xam ne dañuy nekk kan jigéen ak góor ñu nekk di ànd ni si doxaan gi nga xam doxaan gu xaram gi rek ànd gi benn ñaar mu dajeg yow fóonoo ko mu ne du góor ngeen dajawaat làng yeggoo leen tabaarakallaahu ci njaalo mu bala ne du góor yooyu nag dafa yées. ah loolu am na. njaalo lu yées la nañ ko ba. Mhm. xaraam na xaraam daan te daan yi tabaarakallaahu moo ci ne. kon nag ñu bàyyi xel baax a baax. kon nañ bàyyi njaalo. Ah, te baaxul de. te kon di flirter. waaw baaxul déet déet déet flirter dafa xaraam. Ah. Mhm. njaalo daa xaraam flirter xaraam ñaar yépp xaraam. njaalo moo gën a xaraam flirter. mais Ndiallo moom mais yëpp a xaram. amul ay foloteeg nja yëpp a xaram waaw. d' accord kon kon nañ bàyyi Ndiallo nañ bàyyi flirté. waaw kay ñu bàyyi lépp. raayanteeg ah. foloteeg xool ba teg bi xool bi nii rek. di fixé yëpp a xaram am na keroog am na keroog ku ci mbiru communication bi nee na yow ni nga ciy waxee dafa ëpp. daal dafa xaram de. li ma ci wax loolu loolu li ma ci wax loolay li am communication bi nii loolay li am yaa ngi index indexé bi rek direct loolay li am maanaam communication nga yëg ne ay bàkkaar day am ci communiqué mm-hmm. fi rek yaa ngi woo di bànne ko ci kàddu ndaw si xaraam na nga def appel vidéo ak ñaari bàkkaar bànnee ko ci kàddu ak xool xaraam définitivement kooku moom lu leer la fixé tamit jigéen mu lay romb nga ne ko jàpp muy dem nga di ko gunge nii mu naan nii nga naan ko nii dafa xaraam yontu yàlla Muhammad nee na laa tanzuru xoolal daf ne laa tanzuru laa euh, laa laa tanzuru ta laa nasratu nasratan daf na fa inna laka laysa al uxra mhm. fa inna laka fa inna laka al uxra wa laysa laka al uxra daf na laata tabiwoon nasratan nasratan yontu yàlla maa xam lu mu wax daf na jigéen bu mu la romb kan jigéen bu mu romb jugee nii nga naan ko nii fixé di di gunge di gungeeg demaat wala nga gis jigéen bi demaat nga naan ko nii fixé di dem ak moom yontu yàlla mu am nag laata tabiwoon fa inna laka ula wa laysa jigéen buy romb benn xool nii moom lañ la may boo ne nii yëg ne moom la nga ne nii tourné. bu fekkee da nga labal nag mais yow sa tey wala nga sëgg wala wala mu ne bul fixé bul fixé te tabax mooy bul fixé bul fixé xool ñu ne léegi mën nga def nii defaat nii mu ne déedéet fa inna lakal uxra fa inna lakal uula wallaay sa lakal uxra bu njëkk bi lañ la may. xool nga ni yem ci nga ne nii bul defaat nii bul fixé. oustaz léegi nag xale yi dafa xaraam léegi nag xale yi li yàlla di def. dañuy po dañuy pose lépp dañuy pose ans. dañuy pose lépp xaraam lépp. pose yooyu dafa xaraam. waaw d' accord léegi dañuy pose lépp léegi benn xool bi mënoo xam ndax daa pose wala pose dafa xaraam de boo demee nag bay takk nag mën nga dem choisir yeneen. mais hmm. yooyu dafa xaraam. ayca merci beaucoup en tout cas chers téléspectateurs merci à oustaz tey encore thème la ñu daal di indi indiwaat comme d' habitude ce qu' on fait Adja Astou moo ñëw ci waxtu wi de salaamaaleykum Adja maaleykum salaam Thierno euh, maa ngi lay nuyu euh, di nuyu oustaz di ko ziar bu baax a baax di amaat mbégte ak contentement comme niñ koy defee rek à chaque fois seen émission yor-yor rubrique bi nga xamante ne moom la ñu dippee biir internet ngeen am possibilité di poser seeni ay questions ñu koy tontu directement Thierno. Oustaz xanaa ni may xoolee Adja Assoumi dafa xaram. <laughs> Eh, kon yaa xool di ko fixé nii. <laughs> non maanaam xam nga bërëbu liggéeykaay. <laughs> kon yaa ngi mun naa moom te xool moom. kon yaa ngi koy fixé du bokk <laughs> yaa ngi may indi problème ci sama plan bi quoi. Aïcha est-ce qu'il y a des si comme d'habitude rek. Uh-huh. am nañ fi ay questions ñu commencé ko ak première question bi moom nee na oustaz comme li mu doon wax tout mooy ci affaire borom ñaari tour yi. mu ne damaa yaakaaroon ni su fekkee dafa décédé uh, ba pare waruñu ko woon sulli uh, di ko taal. waaw waruñu ko woon sulli di ko taal nag. Mhm. loolu moom loolu moom lu am la. Mhm. waruñu ko woon sulli nag di ko taal. waaye xam naa nag moom kay li doon li doon mbir moom moom moom moom moom moom àtte moom rey la woon mhm. ah, man bañ na ma dañ koo taal la dama ne ah euh, pour man bañ la dañ koy taal dañ koo bett muy def yooyu ñu taal mais ma dégg ñu ne dafa dafa gaañu ba pare bañ ko suul mhm. ñu sulli ko taal ko mu mhm. a ah dëgg fa yàlla ku ñu xase kii moom ba suul moom tabaarakallaahu li ma wax daal àtt bi ci charia wax daal mooy dañuy xool ku bon daal ku yées ku ne ca moom ñu ne ko jullee ko xool ñu bon tamit ñu yées ñu yées. ñu ñu ñu ñu ñu mais quand ci armée ah, jullit lañ ko léegi nag weerante dafa am. Mhm. ñi ne dañu koy suul ci armée jullit di ñi ne dañuy dem suul ko ci armée boo xam ne du armée jullit du armée yéeféer armée boo xam ne daal ñëpp ko bokk waaw ñëpp ko bokk te it armée boo xam ne maanaam euh, ñi nga xam ne dañoo jaxasoo rek xamuñ lam doon ñu def ko fa genre yooyu la ñuy xool. wala ñu xool armée boo xam ne moom dañuy dem rek ñu suul ko fa moom képp. ñu suul ko fu moom mu féetee fa mm-hmm. waaye bu mu nekk bërëb boo xam ne bërëbu jullit ñu tedd ñoo fa nekk ñu gëm yàlla mm-hmm. ñu di ko tàpp ñuy dem d'accord loolu la ñuy bañ d'accord kon nag tontu waa ngi noonu Adja sur la deuxième ñu ñëw ci euh, deuxième question bi moom nee na oustaz sa soxna su fekkee euh, mayu la jàmm mënoo am si moom bànneex ba ngay dem di seeti leneen léegi ban taxawaay nga war a am ci sa soxna hmm. mu fekkee sa soxna mënul laa may jàmm noonu la waaw ba. Euh, mënoo am si moom bànneex te mayu la jàmm aussi bànneex mhm. mayu la jàmm mënoo si moom bànneex. Mhm. ndax da nga war a. nga dem takk keneen. seeti beneen. nga dem takk keneen. fa la mbir mi ne. say dagan na fa sa dagan na. Mhm. alquran a ko wax. yonentu wax ko. ba demee ci tuxfatul arus nag day wax naan. fase la boo xam ne nag moom yàlla bëgg ko. la yàlla xaraamal la ba pare nag te sib ko. muy fase mhm. waaye daal yàlla daganal na fase daganal na takk daganal na bala ba ñeent kenn la mhm. boo demee ba gisoo ci lu la neex ba ko fa ut moromam wala nga fase ko rek ut moromam fa la mbir mi ne de waaye doon bis booy demee ba wuti beneen jigéen di ñaaroo sariha rey na la néew néew nga néew mhm. néew rek na leer na leer kooku moom mooy li ci waaye sama jabar daf maa nangam awma ci moom bànneex damay wëri beneen jigéen yaatal yëmbe naa ne ataaya lakkuli ginaar yaa ngi ci lu xaraam booy njaaloo booy boo booy njaaloo di booy njaaloo ñu lay rey ci charia. Ousseyn loo may xoolee di ma nii. non waxuma ak yow maa ngi ci caméra bi caméra bi laay wax ak. Ah, baax na waaw loolu daal ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Mhm. lii farata ji daal mooy sa jabar amoo ci moom bànneex. Mhm. wutal keneen. Mhm. teg ko ci. muy ñaar. muy ñaar kooku bu reewee nga wut keneen. tegaat ko si teg ko ci muy ñett. ñetteel bi bu réewee nga wut keneen teg ko ci muy ñeent. après bu jeex. ñooñu ñëpp bu ñu réewee. nga effacé nga effacé. tegaat benn xool ñu réew nga fase fase leen. Mm-hmm. kooku bu ñëwee réew. nga fase ko wut keneen ku réewul. waaw loolu affaire yooyu loolu la rek méttiwul. góor de mën naa takk sans. mais nag takk takk bi nag takk bi moom fase yi amal ci loo ko teg. Mm-hmm. ah waaye xool rek di fase wala di kaw ajal moom baaxul. Mm-hmm. question bi motif la. damay ko jàmm aussi wax dëgg mais jigéen boo ko takkee amoo ci bànneex moom loo koy doyee jigéen boo ko takkee mënu am ci moom benn bànneex lu dul. am na ñoo xam ne sa yaayu doom lañ ko ne. am na ñoo xam ne sa yaayu doom lañ. yaayu doom ak kii ci am nag dañ koy tegee ne. oustaz am na ñoo xam ne comme jigéen ñi ñu ñuy. seen kon dem nga ba jàppee ko yaayu doom kenn la utal keneen kon mu ut ci moom bànneex moom nga bàyyi ko mu nekk yaayu doom moom na nekk yaayu doom nga ut keneen nag ut ci bànneex parce que yàlla moo bind jigéen bind góor nag moo ñaale ko ci bànneex mhm. bànneex bi nag mu war ko am ci jigéen yàlla moo ne jigéen ñi li taskanu ilayha ngir mu ñu dalal leen bu ngeen liggéeyee ba sonn ñu dalal leen ci wax ju neex dalal leen ci jëflante ngeen jëf jëflante ju neex ñu dalal leen tabaarakallaahu ci côté bu ne ba coono ji newul ci yéen yëpp mu mën a wàññeeku góor jigéen lii lay liggéey waaye jigéen boo xam ne boo demee liggéey ba ñëw tabaraka tabaarakallaahu talu la mhm. moo ngi ci téléphone bi moo ngi ci WhatsApp bu dul jeex mu ngi TikTok yu ne tabaarakallaa mu dugg ci lijjantiwu la boo ne benn ñaan mu ne la fukk ne la téeméer heure boo xëyee mu ne la téeméer wala da ngay gis góor ñoo xam dañuy wàcc toog seen place waay toog fa rek toog fa rek na dëjj te wàcc mm. nañ ci timis waaye ñu bàyyi ba vingt une heures ñu doog a dugg parce que dañuy dugg rek bëgg a tëdd na la parce que wóor leen ne bu ñu yeggee teelee ñaw bu ñu yeggee teelee ñaw dinañ leen fa rek wax ju bëri mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel mbel ba jàmm ko fa am mm. moo dañuy toog seen dañuy toog seen place ba mu guddi. ñu doo ko dem xam ne dañuy yegg rek julli tëdd na la. wallaahi xëyaat fajar doxaat ah xëyaat fajar liggéey loo fay toog. dimanche sax doo fa yendu da ngay liggéey. <laughs> Adja sur la troisième et la dernière ñu ñëw ci euh, dernière question bi defe naa ni euh, question bi moom xaw na euh, doy waar trop moom nee na oustaz man sama yaay lu ma ko jox mu xeeb ko te à chaque fois daf may wax xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti te xaalis boobu moo ko yóbbu sax ba mu dem ziyaare màkk. ban xamuñu ban lay lijjanti de te xamuñu ban xaalis lay lijjanti moom. <laughs> yi moom problème am mooy du ci moom mais ci way juram. moo ko naan way juram bu jigéen yaayam moo ko naan. Mhm. xaalis kenn du ko liggéey. dañ koy lijjanti bari na nag ci réew mi la yaa oustaz. d'accord am ñoo daal góor yu baax yaa yor xaalis bi jox la. yi daal ku toog naan xaalis kenn du ko euh, dañ koy lijjanti. Mhm. yaa ngi ci la neex. ar-rizqu laysa yustajru xaalis kenn du ko amee ci pexe teg xel teg mayin dóor nit ñi kenn du ko amee kenn du ko amee xaalis dafa xaram Seydina Ali nee na arrisqu laysa yustajul bi xillati alal daal da koy amee ci amin bu lew ci liggéey bu lew nga amee ci alal waaye teg xel teg mayin teg diil kenn du ko ci amee yooyu la wayjur bi taxaw di la wax loolu nag na bàyyi xel na mu ngi ci mu ngi tudd kàddu yu yées nag donc dañ koy digal lu baax bu la àdduna jay mu ne xaalis boobu moo ko yóbbu mag bu la xew yi mhm. jay xew yi ñu lay tagg bu mu la jay mhm. ndaye la yu bëri yi bu mu la jay mhm. ndaye la yu bëri yi laa ne bu mu la jay jigéen ñi lay wër di la jay bu mu la jay ba mu tax nag doom ji heure bu ñëwee nga di ko tabaarakallaahu naan ko xaalis kenn du ko nàngam ci nii lañu ñu koy amee di xeet la mu lay jox naan ko xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ban façon lijjanti mën nga nag lijjanti xaalis nag mu amee ci amin ba leew waaye te xel teg maayin moom te naan kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti wérul liggéey beeg lijjanti bi mooy mën a ànd mm-hmm. waaye lijjanti kese dem bàyyi liggéey xaraam na mm-hmm. kooku teg xel la arrisqu laysa yustajal bi xillatihi léegi nag waajur ba ko koy digal nag moom ay daanu boppam da koy am ci dig ci ci ci digal ba ko koy digal mhm. da ci am ay daanu boppam yàlla nañ ci yàlla musal nag loolu lu jar a bàyyi xel la amiin Adjaratou ñëw nañ ci càppaandaw gi tey moom daaloo dafa am ay invité te bëgg naa mu installé wu vite fait mhm. alors vite fait looy tàggatoo d'accord amoon contentement euh, comme niñ koy defee à chaque fois juste di leen jox rendez-vous rek ba mercredi incha allah. ba mercredi incha allah. Mhm. waaw rendez-vous ba mercredi maa ngi nuyu Birame ma nga ca station yëmbal di ñu seetaan borom tabaarakallaahu bul tuuf yu baax yeeg yëpp maa ngi koy béggee. maa ngi koy yow daal affaire yow la yem man daal damay dégg nii rek nga ok. gars yi xam nga gars yi moom euh, mu ngi noonu rek mais mais kan. Mhm. gars yi ñu ngi lay béggee. Mhm. ñu ngi lay béggee béggee gi daal heure bu ne mu ñëwee indi la béggee gi ci béggee gi tabaarakallaahu yéen ñëpp ñu ngi leen di waaye moom mën nuyu ko bi daal moom ko baax la te day topp émission bi toujours mu may mu may message ba ma jiitul sax message bi ne ma gisuma la tey ma ne ko ah tey dama loolu mhm. loolu nag tabaarakallaahu mbaaxam la ñu béggee ko bu baax bi daal béggee nañ la tabaarakallaahu good morning <laughs> good morning moom moo lay jàngal anglais déedéet bi moom maay maay jàngal sama bopp waaw tàggatoo ci anglais ah tàggatoo ci anglais waaw how are good morning good night. have a nice good have night. have a nice day. have du loolu nga ma nuyoo sànq. Uh, waaw waaw waaw ndox ah, mooy mooy journée. <laughs> have a nice day. waay. thank you thank you thank you. alors tey jii man fi ma koy tëjee mooy Hafsatou kan sama petite sœur laa koy may. Mhm. oustaz moom dañuy suivre saa su waaw Absa Kane. Absatou waaw ñu ngi lay dañuy suivre saa su ne. Euh, euh, waaye nag nga souhaiter ko joyeux anniversaire jabaru Matar tey. jabaru. Matar. Matar ban la. Habsatu. ah Absa. waaw ah. jabaru Matar. waaw ah. tabaarakallaahu Absa jabaru Matar ñu wax la soyez soyez soyez soyez bienvenue. loolu loolu la ah. mu ne mu ne bu ko wax soyez joyeux nga koy wax. joyeux anniversaire Absa tabaarakallaahu ñaan yàlla yàlla na dundal la. bi jaaxi Seydina Mahamad Absa Bintu Omar. ku ne xam ne tabaarakallaahu turandoo bu dàkkantal ba. li ñu lay ñaanal mooy yàlla may la dund. bi jaahi Seydina Muhammad turandoo bay dàkkantal ba na ngoree ko ci ay jukko bi jaahi Seydina Muhammad yàlla defar say mbir ab sa jërëjëf alors euh, ah dama ko mën wax ci pël nag euh, Matar maa ngi tuub bu baax a baax <laughs> alors merci beaucoup en tout cas di leen jaajëfal bu baax a baax dinañ jox dig daje ëllëg incha allah